Ali Sow mooy ex président bi woon ex président non ex président bi nekk Révas bi ñuy wax Révas ñun nag ñun ñooy Révas bi nga xamante ñoo nekk région de Dakar ni mu amee région Thiès am région Fatick am région Kaolack. moom mi nga xamante ne moo koy mbubboo nag te amul carte professionnelle loolu mooy premier délit bi deuxième bi mooy waa chambre de métier may ko mu naan dafay jéem a organiser réunion wala assemblée générale loolu lañ dul nangu tey duñ ko nangu ëllëg dem nañ fa léegi tey ci suba nag jot nañu secrétaire président bi foofu wax nañ ko li ñu koy wax wax nañu li ñuy wax nee nañ ko nag demee bu fa réunion ba amee dootu doon chambre de métier chambre de mort lay doon ndax ñun ñëpp nañ fa wàcceek suñuy oto ak suñu délégation dara du fa am ndax ñun ñoo ko fa gën a yay am nañ carte carte de membre te dañ fay participer normal moom nag amu ko wër faa organiser dara defoon na ko mu jàll à Louga du ko defaat bii yoon mu jàll parce que ñëpp am nañ seen récépissé ñuy bëgg a wax Sénégal yëpp ne nañ xool su fekkee ne dafa assemblée générale ñooñu muy wax ni ñoo teewal raison yi ngir yàlla ak unité bi nañu présenté seen seen seen seen seen kii seen récépissé bu ñu présenté seen récépissé xamal leen ñoom ñoo teewal gox bii su boobaa comme loolu dina jàll. dañu bëgg national bi bu dee am rek mu doon benn national boo xamante ne sii mooy ëmb région yi mooy ëmb secteur dakaar li fekk nag benn googu amul rek ñun ñi nga xamante ne sii ñooy jeunes yi tey nekk ci terrain bi di liggéey ñun la ñu gën a tardeel ndax bari na ci loo xamante ni état mi ngi koy wax ak moom aggul ci ñun kii dundee intérêt personnel nag ak kii dund kii dundee intérêt mbooloo mi du bokk. je lance un appel formel solennel. à l'état du Sénégal pour mu xam ne xëy na kat la doon jàll mënatu la jàll. ñoo ngi taxaw yor suñu récépissé région yi nag ku ci nekk yor na récépissé am ñeneen ku ci nekk dugal nga si récépissé ñi ngi ñaan état nag vigilant ci affaire boobu ñun nag en tant que Ousmane Sow président maay président ordinateur région yi te loolu muy def yëguma ko ci presse bi laa ko yëgee envoyé ma message envoyé ma dara. ñuy wax état nag ne ko am na foo xamante ni doomi réew fa yeggee moom moo war a li muy mooy na xool li nga xamante moo nekk ci yoon. mu tegal ñu ko ci yoon balaa dara du fi xew ñun jeunes yi nag seen tur laay wax am na loo xamante ni duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba te duñ ko nangu gannaaw suba ça ne pa si sinon nag état bu jëlul li nga xamante ni moom mooy euh, euh, kii responsabilité yi mu war a jël ak Maguette Mbow lépp loo xamante ni am na ci na xam ni moom mooy responsable nañu woo régions yi ñu génne seen récépissé ñu tek ko ci table ji su bëggee ñu dem assemblée générale ñu dem assemblée générale bu ko yàlla falee ñu ànd moom liggéey bu yàlla falee keneen mu ànd ak moom liggéey su fekkente ne bëgg na jub